ñëw xel mu sell mi te bësu màggalu Pentecôte ñu ngi jukkee nettali bi ci téere jëf ya saar benn aaya fukk ak ba saar ñaar aaya ñeent fukk mu sell mi nee na ci jëf ya saar ñaar aaya benn ba juróom-ñett bi bésu màggalu Pentecôte agsee ñoom ñépp booloo nañu ci benn bërëb te saasa riir jolle asamaan mel ni ngelaw lu gaaw te bare doole daldi fees dell kër ga ñu toog te ay làmmiñ yu mel ni safara feeñu leen ñu tasaaroo ci seen biir tong ci kaw kenn ku nekk noonu ñu fees ak xel mu sell mi ñoom ñépp ñu daldi wax yeneeni lakk ñu leen xel mu sell mi maye ñu wax ko fekk booba amoon na ay yawut yu daloon yerusalem doon ay nit ñu ragal yàlla te bokk ci xeeti àddina yépp bi nit ñi déggee riir ma nag ñépp dajaloo daldi waaru ci li ñu dégg ñuy wax ku nekk sa làkk ñu waaru te yéemu naa gis leen ñiy wax ñépp ndax du ñu waa diwaanu galile naka la mën a amee nag ñu di leen dégg kenn ku nekk ci nun nuy wax ci sa làmmiñ wi nga nàmp